ñun bi ñu doon jàngal ay leçon ay way booba xale lañu mun naa wax ne ci seen biir laa yaroo kon bu ma waxee da ko xam ndax man maa ngi du ko du set maa nag Youssou Ndour danga koy wax ne ko ba ngay jàng woy maa ngi jàng alxuraan nga mokkal woy ma mokkal alxuraan buñ dajee boo woyee ma wax alxuraan mm-hmm. kon ñun bi ngay nekk bi ñu nekkee xale lañ la daan déglu ngay wax loo xam ne dafay joxe ay leçon yoo xam ne léeg-léeg mu dëppoo ak waxu yàlla kon loolu tey leçon la ci ñun musuñ fi ñëw nag musuñ am soxla wax dëgg yàlla ci kenn ba dem ci moom di ko ñaan dara waaye nag am na fooy tàmbalee foofu lay tàmbalee tey ki fi nekk nag ilimaan bii tax association imam envoyé ñi fi pour ñu ñëw ne nañ ñaan ñu retiré plainte bi bañ a dem ci yoon ndax ilimaan ak coon sekk ña ngay dem ci yoon ne loolu de du la leen gënal naam nag am na ñu gën a jege association de imam ci kii ñu koy ñaanal ci saahir waaye amul ku ko gën a jege ci baatin ndax bu fekkee liggéey bi la ñëpp a bokk benn liggéey bi mën na ñoo ñàkk a bokk nag mbootaay mën na ñoo ñàkk a bokk groupe waaye ñoo bokk nag benn liggéey ñoo bokk benn xalaat ñoo bokk benn bëgg-bëgg mooy yëpp ci yàlla la war a ñëw nit nag ku dul juum amul yàlla rek moo dul juum te amul kenn koo xamee ne am nga ay soppe 100 pour cent ku ko wax waxoo dëgg waaw kenn ku amul soppe am ngay noon say noon nag tey bu ñu sañee dañuy socc seeni bëñ bañ bëgg a ree waaye say soppe itam dañuy socc seen i bañ bëgg a ree yàlla na seen soppe socc seen i bañ day ree loolu leen di ñaanal yéen ñëpp amaa nag euh, ñaan gi ñu koy ñaanal mooy euh, ilimaan bu fekkee dafa wax te wax boobu ñu ne njuumte la te li ëpp ci nit ñi wax ne njuumte la asaasu de imaam dinañ jóg soo seen dàll dox ak wax pour jubbanti lañ xalaat ne njuumte la ndax lañ xalaat ne njuumte la mooy mooy lépp lu nit di wax war nga ci am preuve nga xam ne buñ la ne lii nu mu demee nga ne nii la demee maa ci teg sama bët maa gis walla maa dégg lépp loo xam ne nit mun wax ne maa ko gis munoo wax ne maa ko dégg soo ko yóbboo tribunal coono rek nga indil borom moo tax nag ba nga xamee ne lii tey coono mën na ci juddu te ki nga xam ne mooy waral coono boobu bëggul ko coono bëggul fitna bëggul jàmm buggul jàmm la bëgg muy coon sekk ak njabootam loolu moo tax association de imam délégué alaaji Omar Diène am na ñaar ñeneen ñu waroon a ñëw mais dañuy arrêté RTS. imam rek la nit rek la dafa juum nag juum bu metti boo xam ne xëy na ni mu ko waxee and yaakaar woon xëy na dina am lii mais du dangereux la ndax tuuma boo ko tegee ci nit rek. pour mu dindi ko wala mu day jafé té day metti Wally bi mu fi ñëwé démb c'était un homme très blessé ñu ñaan bayam ñaan ko momit pour mu ñaan avocat yi ñu tek li ci suuf ndax Sénégal benn bop la ñu xam ko mom ci défar traversé na ay étapes yu metti de sa vie doomam it noonu mais mom mo woy ne siiw du jàmmi borom te it la àddina boo fi nekkee dina am ñu la bëgg dina am ñu la bañ dina am ay ndëgg sërëxal dina am ay wax yu ñaaw dina am ay wax yu jafe ñu ne nag ñun imam waruñu seetaan li di yàqu te it tombe na ci tey tax benn imam la ndax dañ ko doon defal ay jàmbur sama carte de visite bi mu ko gis bi ma ko jox gis na ne ñu ngi dox ci ay sëy yu yàqu ñu ngi dox ci ay yu wala ay miraas yu jafe

Bye.